Macky Sall il est hors de la scène tey ci ci ci Zahir. si Dieu le veut bien. <laughs> ci Zahir. suñu yàlla suturaalee. Uh-huh. on va vivre un moment historique. Uh-huh. le président sortant euh, va organiser l'élection euh, la passation de de de, de service. Uh-huh. yàlla nañu ko yàlla may ñu dund ko. ñu ko ce sera un grand moment pour la démocratie. j'espère Amadou Ba mooy candidat de la majorité présidentielle d'abord comme nan la nan ngay boo doon évaluer euh, économiquement. Euh, Macky Sall Sénégal émergent en voie PPTE euh, euh, e, régression économique wala da ngay bokk ci ñu naan wooy bilan matériel immatériel le bilan matériel il est bon. Euh, wooy le bilan immatériel c'est à revoir la lan mooy sa sanction. man man man de manière man xoolewu ma ko noonu. noo ko xoole euh, man nu moo ko xoolee mooy la mu bind 96 les priorités institutionnelles. Macky Sall gëmul institution man wax na ma ko. wax na la ko. waaw kañ la la ko wax. nii xam nga te ensemble à Benno Siggil Sénégal. non mais kañ la la ko wax. Benno si on discutait comme ça ñu may wax ak yow. mën na la que institution yi baax na. ah, ah man ne ko je suis pas d'accord te trompes monsieur le président. mais bi mu waxee institution yi baax na lu mu ci teg moom lan mooy lan mooy position lu mu xalaat. loolu la que comme nu mu tëddee nii le président a trop de pouvoir il est d'accord avec. ah euh, ok et il a appliqué c'était la catastrophe. xale yi ñu ngi jël gaal yi di dem gëmatuñu réew xam nga man nee naa leen seen coow yu bari yépp ay croissance ak ay bon élève du fond ak yooyu yëpp man tiitalu jaaxalu soo leen bëggee débat sérieux ngeen en face de moi ñu organiser ko te doo leen ko ñeme parce que ay yaafus ngeen doo leen liggéey vous ne faites que répéter des choses que vous ne comprenez pas <laughs> bah oui noonu laa leen koy waxee ma vous êtes quand même dur mais dama leen xam. du liggéey xam nga dañoo jàpp ne bés bu ñu amee diplôme rek nañ ci. alors que ah soo amee diplôme en ce moment là ngay gën a commencé di liggéey. Sénégal diplômé ak cadre ak expert du benn foog ñu jàngal leen ko ñu xam ko donc Sénégal ñoom ci seen bopp ot moo ñëw assemblée nationale il l'a avoué mu ne ma sur deux cent mille sénégalais jeunes qui cherchent de l'emploi nous on peut en donner que vingt mille dix pour cent moo ko fa wax. le le marché de l'emploi mën a absorber. oui en faisant des bricolages créer ay ASP des emplois verts ak yooyu pour moi c'est la marque de l'échec parce qu'on pouvait faire autrement ci yàgg naa leen ko wax yaa ngi may mhm. Sénégal xam nga la mu soxla c'est plus difficile mm. parce que ça demande plus de discipline def lu la neex quoi xam nga Sénégal jàpp ne waaye je dois faire ce que je veux c'est ça ma liberté faire ce que je veux yàlla moo ko moom wax naa leen ko tous les jours mais d'abord Sénégal mu soxla sa appréciation euh, du bilan de Macky Sall. mais wax naa ko dans mes questions qui depuis 3 4 5 6 ans man du ma perdre sama minute yu ma des. waaw mais vas-y vas-y non mais le bilan euh, kenn. partage ça avec xam mais mooy lan. un ñaata emploi la koom-koom bi di créer c'est 10 pour cent ça veut dire ans y a au moins un million de jeunes sénégalais qui sont en parce que si 200000 yooyu wala 300000 mettons mu jël 200000 parce que ot loolu la wax mais gars yi neen leen 300000 la léegi. 20000 80000 yi buuxante dans les secteurs informels ñi débrouillé dem diaspora mais tu as au moins ou 80000 qui ne font rien qui dépendent de leurs parents ak yu mel par 12 c'est presque à 1 million. qui sont en rade gis ngeen koy gis ci kër yi looloo fi nekk c'est un échec patent et c'est ça l'objet de l'économie économie amul leneen lu dul jàppale doomu aadama yi góor ak jigéen ñu mën a tekki am njëriñ waaw seen dund gi mën a ce qu'on appelle le bien-être la loolu mooy objet de l'économie benn ñaareel bi tout est à yow mën nga toog fii tey di imaginer Dakar million millions d'habitants fu njëm te fan la njëm directement avec leur histoire de Diamniadio bu ñu joon bu mu ñëwee assemblée nationale premier ministre wax naa ko man ne ko vous mettez toutes les tous les investissements à, à Diamniadio il y aura un tout le monde va venir ici et les autres nee naa leen depuis 2007 il nous faut des pôles régionaux de développement buñ ko caaxaani buñ ko caaxaani le Sénégal ça ne doit la région de Dakar même un peu agrandi à Mbour c'est pas possible ça va être invivable moom la ma tubaab bi doon wax 2015 les savants français là le prix Nobel et autres ou nobelisables ñu ne ma xam nga si en 2030 40 il y aura le chaos dans le Sahel avec trois zones de vie trois Lagos nañ jàpp ne mën na am zone de vie autour de Lagos ñuy wax bifurcation Accra Abidjan donc Accra Abidjan day nekk genre ou je sais pas moi bifurcation ou en tout cas zone zone économique Dakar Point d'interrogation. Est-ce on y est bah Avec Macky Sall, on va Ou avec les autres, là, de la paire, là, qui veulent être président, quel ça va être pire. Quel petit de la paire Nous, il y a ça, les petits candidats, là. Mais, mais, Comment, mais, mais, <laughs> mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, te kenn du ci wax dara lu leer laa a wax xam nañ nga xamante nañu amuñu benn vision dara la ñu amul avec les 3000 cadres là ils ne produisent rien du tout à la tête Abdoulaye Diouf Sarr xam nga sax mu nga en 12 ans absolument rien ñoom ñëpp toog fi di xaar nous sommes les non encore nommés xaw ma yooyu nañu liggéey non oh, mais attends c'est pas bon pour le pays il faut un peu de courage patriotique quand ñu ci bare état bi amuñu courage patriotique amuñu ko te état bi le peuple sénégalais ñu ci bare école publique nañ jógee comme man seen bàyyi feeluñ leen ñu jàng génération boobu ñëwagul ñu fi nekk c'est l'école publique de Mamadou Dia et de Senghor moom moo leen formé de Amadou Mokhtar Mbow ba ci man mi ah voilà jàng école privée mu alors donc on doit quelque chose au peuple nañu bàyyi caaxaan l'Afrique c'est l'enjeu du monde ñu nekk fii di def ay di pàccanga di battre dans les dans les cérémonies c'est pas possible il faut qu'on arrête ce ce ce ce yëfu tàppale nañ ko bàyyi